asalaamaaleykum mbokk yi tey la gaaw fukki fan ak ñeent ci weeru tamxarit ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ak ñett ci weeru ut ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar fukki fan ak ñeent bokkul ci lim yu fàtti lim bu rafet la kon tey ci gaaw bi rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ku ca watu li ñu ciy tere tere ak wàccandiku mooy ku ca sangu wala ku ca fóot ñaanuk bis bi yow yàlla yàlla na nga ma jéggal sama farlu ak sama tayel sama njuumte ak sama tayeef lépp mu ngi bàyyi ko fi man allahuma axfir li jiddi wa hasali wa xata'i wa amdi wa kullu dalika indi xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku am ñetti doom yu jigéen muñ seeni coona di leen dundal di leen woddu kem kàttanam dinañu nekk kiiraayam ëllëg bis pénc ba di gëm ak sawara xadis bi ahmad moo ko nettali qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam